ñoo nekk ci coalition euh, Diomaye président alors ma tàmbali ko ndaxte bu ñu dooree rek ba bu ñu nuyoo ba pare. dañuy tàbbi jëm ci li nga xamante ne nii moom mooy li yëglikaay xëy daal di fësal ci seen i xët ah ma doore kook le soleil comme niñ koy waxee soleil day yeew biram ko jëloo de daa mel ni euh, est-ce que du le président Bassirou Diomaye Faye koy woo wala moo koy message alors le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest noonu lañ koy waxee waaye soleil bi fii tey jii nii ah, ah moom laa koy njëkkee euh, suma suma suma revue des titres ndaxte euh, ñu ngi ci wax ne accès au logement loyer SICAP SNHLM foncier ñu ne le président pose les fondations lu jëm ci wàllu logement ah, jaarale ko ci location beeg SICAP HLM SN HLM ak lépp lu jëm ci suuf li nga xamante ne ni bëri na coow kii di njiita réew mi nee na ah, teg na ay ay ay fondation noonu lañ ko waxee ci ci journal bi ba tax na ci nee nañu faire le bilan exhaustif de la gestion des pôles urbains et des projets de construction de logements sociaux maanaam lépp lu jëm ci wàllu anam gi mbiri doon doxee ci pôle urbain yeeg ak euh, wàllu anam gi ñu doon euh, tabaxee euh, yenn ci ay logement yoo xam dañ ko doon tuddee logement sociaux njiite réew mi nee na fas yéene na ñoo taxaw temb ngir daal di xool euh, koppar gañ ca joo lépp lépp nu mu demee waaye nag daal di renforcer lii di SICAP ak SNHLM ba ñu daal di am doole su ko defee lépp loo xamante ni teg nañ ko ci seen i wagg ñu daal di kaa mën a matale moo tax itam nee na simplifier davantage l'obtention du permis de construire le premier ministre en invité à un conseil interministériel ministériel sur le logement administration 81 également poste yoo xamante ne nii nee nañu fas yéene nañ ko daal di xoolaat changé ko copparti ba lépp méngoog jamono loolu yëpp day ànd ak euh, lii di déclaration politique général nag bu fekkente ne mën na nekk ah loolu yëpp journal bi moom la xëy daal di dëxëñ ci xëtam gu njëkk def ci nataalu ki nga xam te ne nii moom mooy njiitu réew bi di Bassirou Diomaye Diakhar fay noonu la xam naa ne dinaa ñëw ci kanam tu teg ko ci table bi ndaxte lii mënees nañ cee waxtaan ak suma gan yi ah di biram xujaloo ma koy fàttali secrétaire général adjoint bu Pastef ak kii di euh, Djibril Gueye nekk kenn ci cadre euh, coalition Diomaye président waaye tamit oustaz ah, Assane Seck waaye buñ ca buñ ca noppee ca boobu dañuy dem ci libération libération moom toujours égal à lui-même la le quotidien mu wax ne libération ne paiement de la taxe dénommée euh, contribution spéciale sur les mines et carrières noonu la ko daal di defee ci xëtam gu njëkk ba tax na mu ngi wax ne ah, euh, kii di euh, nguuru Sénégal moom mu ngay wéy di di di di xool ah mbootu yenn ci sociétés yi nga xamante ne ni dénk nañu leen wàllu mine bi wala ñu cay ñu ci yëngu moo tax nee na redresser lan ah lii di euh, fisc bi jàpp ci euh, lu toll ci daanaka trois cent quarante et un virgule cent soixante neuf millions maanaam euh, ñetti téeméer ak ñeent fukk ak benn yu toftal ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci million ci suñuy dërëm ah loolee nag ci entreprise ban ñuy tuddee ko entreprise bu Mapate Njuk SA donc euh, loolu yëpp daal ci tribunal bu ndakaaru démb taxawoon nañ di caxaka càqi ba tax na fi mu toll ni am na lu leer lu ñu ci teg ku ko bëgg a xam rek ah da daal di dem yër lii di journal bi di libération ndaxte procédure ya na mu demee ca Sococim ak phosphate ba kees ak lépp lépp lépp dëxëñ nañ ko ci journal bi ndaxte journal bi ci wet gi tamit mu ngi wax ci wàllu accident ah yu circulation bi maanaam l'accident yi ñuy nemmeeku nee na Afrique nag lu toll ci deux décès Euh, la ñu daal di nemmeeku ci atum 2021 loole nag euh, bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy OMS ah loolu journal Libération moo ko de xëy daal di fësal ci xëtam gu njëkk alors buñ ca noppee Ismaïla fu ñuy tàbbi ah ci ban journal Walf Quotidien Walf Quotidien nee na moom tamit ba tey ji lu soriwul lool Libération la mu wax moom itam mu daal di ñëw ci lii di pétrole bi ndaxte SAR ah, la wax jàpp ne ah, fi mu toll nii SAR daal mooy le maillon maillon faible ah euh, nee na euh, ba tax na mu ngi def tuuti taxaw seetlu jëm ci wàllu ah, Nigéria na muy doxee ci pétrole nañu ko xamee ci doole ja mu am ah ñu teg ko ci table bi xëy na di ko méngale waaye tamit ca Saint-Louis nee nañu ñii nga xamante ne ni ñoom ñooy nappkat yi ah ñoom dañoo daal di dummóoyu ñii di BP ak Cosmos lan la page 3 ak 4 la ca Walf Quotidien ku ko dem daal di ubbi dànk gis ah ca noonee nag ñu daal tàbbi ci ban très rapidement ndaxte tey moom dama leen koy defal mu gaaw ah, dem ci tribune ah, rapport la xëy daal di fësal nee na ah, rapport sur la gouvernance et sur la reddition des comptes la politisation de la haute administration publique inquiète Niger moom dafa jàpp ne politisation jombul ah, ah, am na ci administration bi ba tax na moo xaw a ah, indi eh, xel ñaar eh, ci IGE ces fonctionnaires nee na son des responsables des partis politiques képp koo xamante ne nii rek bokk nga ci ñay jiite lii di administration bi moom dafa jàpp ne da ngaa bokk ci parti politique wala sax mouvement boo xamante ne ni da ngay dooleel kii di njiital réew mi loolu Tribune moo ko wax Tribune ah ba tax na eh, nee na bu ñu sukkandiku ci IGE politisation bi maanaam politique bi ñu nemmeeku lool ci administration publique bi ah dafay daal di indi ay njeexital ci anam gi nga xamante ne nii IGE waras na ko mën a def ngir daal di xool mbóot yi nekk ci yenn ci ay direction yoo xamante ne nii dafa daal di nekk lu lu lu public fii ma mënu ma fee romb te du leen bàyyi ngeen wax ci seen xalaat ma njëkkee ko biram Khoudialo euh, naka ngay jàngatee euh, journal bi li mu xëy wax. bon euh, li mu xëy wax am na lu bëri lu ci nekk dëgg mais qui en est le responsable bul fàtte ni ñun ñetti weer lañ def. Mhm. cest à loolu moom yàgg na fi c'est-à-dire jël ay politique. teg ci haute administration bi xam ni day gêner IGE c'est totalement vrai. Mm-hmm. mais ce n'est pas la faute du nouveau régime je crois que nous essayons autant que faire se peut de rectifier. Mhm. ñu ngi rectifier. par mhm. rapport aux nominations boo xoolee. Mhm. Euh, on prend des des spécialistes de chaque bord. donc véritablement loolu moom bu ko waxee na xam ne ñu muy accuser mooy gouvernement Macky Sall. mooy gouvernement Macky Sall alors euh, Djibril yow tamit nooy jàngatee journal bi tey politisation jëm ci wàllu ak itam xool naka la ñuy def ba inspection général d'État mën a def liggéeyam. waaw man sincèrement man gisuma fi euh, politisation parce que boo leen xoolee. le gouvernement bi Ousmane Sonko premier ministre daal di tegal c'est formé de vingt cinq ministres donc ça reflète un tout petit peu lan mooy rapport bi am entre profil compétence ak post mhm. ministre yi gisuma ci benn ministre boo xam ne dañ ko fal parce que amul compétence euh, ci li mu nekk euh, wala ñu fal ko poste politique. Mhm. waaw donc euh, gis ngeen nomination yi ni mu yéexee ba gaa yaa ngi kaas ne lu tax lu tax nomination yéex. Mhm. donc loolu yëpp day firi président de la république rupture systémique bi mu woote. xam nga dafa bokk ci programme euh, euh, Bassirou Diomaye mhm. dafa bokk ñu ne une administration euh, efficace efficiente au service de la population. Mm donc loolu li ñu bind nii je pense pas que ni euh, lu am la. gàllankoor voilà gisuma ko gisuguma ko quoi. Ah, ma gis nga lu ni mooy li li biram ko ja wax. non IGE la ñu politiser. IGE la fàttali la depuis Wade IGE moom lañ bàyyoon mu song Idrissa Seck moo la Abdoulaye Wade avait utilisé l'IGE euh, contre Idrissa Seck euh, IGE Macky Sall moom il en abusait même Macky Sall avait utilisé l'IGE contre Khalifa Sall. léegi nag est-ce que man je dis gis nga parfois ñun on n'est pas conséquent avec nous-mêmes. gis nga euh, soo quand un candidat à l'élection présidentielle si tu es candidat à l'élection présidentielle pour man il y a pas politisation de l'administration tu gagnes tu gouvernes avec tes hommes tu réussis avec tes hommes ou bien tu échoues avec tes hommes ah ouais, parce que pour man rien il y a rien qui qui empêche à compétence égale on choisit ses alliés mhm. loolu la politique est ainsi faite bu la ci kenn nax man de sincèrement su doon man loolu nga gëm daal gis nga pour man mhm. euh, ma jeexale foofu pour man gis ngay affaire appel ak candidature ci yëfu kii yooyu yëfu caaxaan la rek yoolu yëfu yabaate la gis nga nit da ti t'engages en politique c'est parce que tu te dis que tu peux gis nga quand quelqu'un ne s'engage pas il n'est pas tenu il n'est pas tenu mhm. mais il y a parce que man mii biram sul biram li mu def ci Pastef peut quand il y a un poste man j'étais de l'opposition ou bien même j'ai jamais fait de la politique à compétence égale mais est-ce que dinañ ma choisir sur Birame Souleye sur euh, Birame Khoudia c'est ça le problème les aussi ah, euh, il faut que gars yi daal. ñu comprendre gars yi daal nañ leen bàyyi seen seen nguur moom. mu ngi noonu <laughs> noonu nañ ko. consolider kon kon mu ngi noonu moo tax sa waay euh, président moom démb maa ngi naan leen bale baa ngi ñëw. ah waaye léegi bale bi moom du ko teg ne dafa mel ni souffleur sax la yor di soufflé <laughs> di génne gars yi alors man déglu xaaral ma jël sama sama dem ci Sud Quotidien Sud Quotidien laay tab bi la ah, ah wax ci li nga xamante ne ni moom mooy respect du délai des trois mois requis pour la déclaration de politique général Euh, pourquoi ñu bëgg a def date bi waaye xaar loolu waxtaan la ci kanam dinañ ñëw euh, quand les PM jouent la prolongation mooy euh, ñii di premier ministre yi bu ñuy jouer lii di prolongation mooy di yokk date yi donc loolu moom la journal Sud Quotidien daa di xëy fësal ci xëtam def ci nataalu kii di Ousmane ko ca ginnaaw président assemblée nekk fa waaye nee na de 2020 plutôt de 2000 à nos jours maanaam 2000 ak léegi ah seuls six de gouvernement sur dix ont dans le délai des trois mois leur grand oral prévu par l'article 55 de la Constitution et encadré par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale merci beaucoup ba nga tuddee règlement intérieur bi Sud Quotidien ndaxte règlement intérieur bi mooy mooy jafe-jafe bi alors ndaxte nee na moom ah, ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy six yu ñu jàpp ne ay premier ministre lañ ah, euh, déggal plutôt fukk ci premier ministre yu ñu am juróom benn yi ñoom ñoo daal di euh, tënku ci ñetti weer daal di dem wax ak ya mooy ña teewal askan wi ci pencum ndaw réew ma noonu la ko sud daal waxee Aminata Touré Amadou Ba Moustapha Niass Idrissa Seck nee na Hadjibou Soumaré ah Souleymane Ndéné Ndiaye ñooñu la wax ne ñooy juróom benn yi waaye nag Macky Sall mi fi nekkoon président ba mu nekkee premier ministre defut loolu ah Abdoul Mbaye defut loolu bun Dionne également yàlla na ko yàlla xaraajana ah, deful woon lu ni mel mu nekk nag ah, loo xamante ne nii ah ñoom daal di nañ ci xëy waxtaan ci eh, Sud Quotidien buñ ca noppee ma dem ci ban mooy le quotidien le quotidien nee succession intense de pluie ah taw bi moom la xëy daal di def focus ah nee na l'orage rage avec ah, ah, mu def ko en rouge nee na de Touba à Kaffrine plusieurs quartiers dans les eaux mooy Touba. ak li nga xamante ne ni moom mooy euh, ca Kaffrine euh, quartier yu bëri maanaam gox yu bëri dañoo daal di nekk ci ndox mi ñaari doomi aadama euh, rawatina sax ñu nekk ay xale nee nañu dañoo daal di maara deytaali ñàkk seen bakkan ci ndox mi ca Kolda Dakar moom ah, nee nañu ñu ngay daal di tiit ci lu jëm ci wàllu inondation ñoom le quotidien ñoo ko xëy daal di fësal waaye nag politique de logement sociaux Diomaye poursuit les fondations de Macky ah non quotidien quotidien daal tey nii la fii la génn fi mu génn daal euh, xaaral dem ci bés bi bés bi le jour ah, moom nee na euh, professeur Babacar Gueye ngeen xam ko bu baax a baax ah, di ki ñu ki ñu jiitaloon ngir mu daal di matale. lépp lu jëm ci waxtaan euh, wi ñu seqoon ak euh, ñi yàlla may ñu xarañ ci yoon ak itam képp koo xamante ne jàpp nga ne yoon war nañu ko mën a euh, joyanti ci réew bu Sénégal ba mu méngoog ah, anam gi réew mi di doxee donc moom professeur kër Gueye moo nekkoon ca bopp ba ca waxtaan yooyu moom nee nañ le oui le oui lu tax loolu ñu ne je suis d'accord si c'est pour réduire le pouvoirs du président de la République mooy lan ci wàllu référendum nee d'accord na bu fekkante président bi nga xamante ne ni at yi weesu doon nañ ko wax waaye nag le référendum nee na donnerait un caractère plus légitime à la réforme ah mooy dina gën a nekk loo xamante ne nii lu légitime la ah, euh, su fekkante ne daal joyante bi mucc mucc mucc na ay moo tax si les nouvelle autorités mooy les nouvelles autorités ñu bees nii ay kilifa yu bees yi nekk ci bopp réew mi ah dañuy daal di euh, créer lu mel ni cour conseil euh, cour constitutionnelle ah la loi d'amnistie peut être invalidée nee na moom jàpp na ne boobaa nag lii di loi amnistie bi ah moom mënees nañ ko daal di invalider noonu la ko xalaatee noonu la ko waxee itam journal bi mais moo tax ñu ne le oui si trois points d'interrogation euh, trois points de suspension plutôt alors bu ñu ca noppee l'observateur moom indiscipline au Sénégal la wax neen la solution radicale noonu la ko waxee sociologue yi la dékk microm psychologue yi ah euh, psychosociologue yi ñoom ñëpp ñuy waxtaan ci mbir mi indiscipline moom bëri na ci réew mi ndaxte gis nañu ca teer ba xoola ñii euh, di jéggi ñi ñoo neex pont bi ci kaw ay taxi di ca di ca dox fi nit ñi war a dox ñoom ñu cay ñoom ñu cay kii waaye lii nag moo nekk li gën a doy waar mooy ay oto yoo xam te ni dañ koy surcharger ñi yéeg ci kaw ñi yéeg ci suuf ah ñuy dem nag ca ay làmb ay match ay football ah, mu ngi noonu moom daal journal bi tey fii la xëy génn waaye ci suuf am benn waxtaan wu yaa bu mu seq ak kii di Euh, Serigne Mboup nekkoon fi candidat waaye tamit jiite euh, li nga xamante ne nii moom mooy mairie bu Kaolack euh, di ñëwaat ci wàllu payoor payoor gi jëm ci fiski yeeg ñoomi seen ci ci wet gi itam mu daal di ñëw ci bàccali bàccali mi nga xamante ne ni tabb nañ ko ngir mu nekk ci waxtaan yi jëm ci wàllu denduk Afrique fii ci réew bu Sénégal itam ci réew bu Sénégal Mimi Touré ah, mi mi mi mi ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy taxawaayam ci diggante Ousmane Sonko ak. kii di le président Bassirou Diomaye Diakhar fay moom Mimi Touré démb euh, daal nañ kaa yaatal ah euh, ginnaaw ba mu yëkkatee ay kàddu alors mu ngi noonu journal bi moom la xëy daal di fësal Ismaïla ñu tàbbi ci ban ban ban journal wala fii laa yem a yéen ah euh, waaw Euh, lii euh, taska taskatu xibaar yi euh, yëngatu ci wàllu tàggat yaram dem ci stade di wax ne Mbappé moom fi mu toll nii joueuru Real la waaye nag ban place la war a daal di taxawee maanaam nan la war a feesee foofee ca Real ndax day dem ca côté gauche ba wala côté droite wala ca kaw en tout cas lu mu ci mën di nekk ñoom ñi yëngatu ci wàllu tasum xibaar ñu ngi ciy wax ci biir stade waaye stade tamit fàttewul benn yoon sénégalais bi di Mikayil fay ah moom mi nga xam te ne ni ca Barcelone ah, bëggoon nañu bëggoon nañu mu mu daal di wane boppam ah fan yi weesu ñu naan day dem Portoom demul waaye daal jàpp nañ ni Barça moom ah, moom war na fa am place kii ngeen di gis nag mooy sénégalais bi njëkk ah, ci wàllu daw ah, bu qualifié ci Jeux olympiques yi ñu war a dem Luis François moom ak Salissar ñuy espérer ne xëy na dinañu sori lool bu ñu demee ci fi nga xamante ne nii moom mooy ca Jeux ya waaye en attendant nee nañu eh, état nee na taxaw na tem ngir jàppale leen alors Balla Gaye la ak Tapha Tine allah le 21 juillet la ñoom ñaar ku ci nekk ngay tëkku sa morom ndaxte démb kii def na open press kii daal di def conférence de presse ku nekk nag ah yaa ngi artu sa morom la ca kanam raw li gët ah eh, bàyyi ma yemale ko fii waaye nag chaque jour su may tëj revue titre bi sama journal bii laay teg ci ci ci ci place bi mooy yoor yoor yoor yoor nee na scandale à la direction de la promotion de l'économie sociale et solidaire moom noonu la ko waxee nee eh, scandale bu rëy moom moo am fi nga xamante ne ni moom moo ca direction de la promotion de l'économie sociale ak solidaire nee na Jéegi Diop moom moo nekkoon njiit la dafa daal di dépenser lu toll ci trente million neuf cent quatre-vingt-un ci sunu ay koppar waaye nag amul benn pièce comptable boo xamante ne ni teg na ko ci table laaj bi samp kay mooy ndax koppar yu toll nii boo koy génne Euh, nga nekk ci direction Jibi Gueye ci yow laay tàmbalee su ko defee ma mën a ñëw taal di toog waxtaan ak yéen.